bon les amis comment vous allez j'espère que vous allez bien gars yi tey nag dañuy dikk yéen ngi defee yéen benn taxaw seetlu si famille sénégalaise mais nag balaa ñu ci commencé da ñaan su fekkente ne gan nga seen bi te abonné ko si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés cloche bi vidéo nag ñu si commencé dañ ñëw yéen si ki moo di maar maar nag boo xoolee lépp luñ ji ne ki nga moo di bigé rek maar da koy gëm moom maar en tout cas maar dafa mel amee soxla ñëw wax ki nga moo di maar maar du faj boobu maar day ñàkkal fee soxla boobu moom maar te Bigué su amee soxla si ki mu war a njëkk ñëw si maar la war a njëkk ñëw moom Bigué ndax mooy papaam mooy waajuram ndax Bigué lu mu def noonu mooy wereef moom Bigué parce que mënoon naa dem feneen di fa xaalis moom Bigué waaye Bigué bu defee ñëw bu ñëwee si papaam di ko loolu def na lu ko war moom Bigué waaye bu demee ba papaam di ko jiim sàcc di ko jiim sàcc naan moo sàcc 2 millions kon nga xam ne maar jàppewul dara Bigué kon nga xam ne maar jàppewul dara Bigué moom maar ndax xaalis xaalis du rëy si kër rek nga jéng sa doom da ngay def ndànk ba am sa résultat yu leer ba jiñ ko ki nga xam ne moo di sa doom tey jii ki nga xam ne moo di Bigué waat bu mu waat tax na ñoom maar ñi nga am ay jafe-jafe ñi nga am ay gàllankoor maar ak soxna bu dër ñi nga am jafe-jafe di am gàllankoor ndax Bigué waat bu mu leen waat moo dal parce que waati kuñ tooñ la te maar déppam ba lakk na moom maar soxna bu dër loxo yaa ngi commencé néew yi waaye kon waati kuñ tooñ la te Bigué neen du leen a Bigué nag Marietou mu ngi koy ñaan mais Bigué nee na du leen mës a baal moom moom Bigué parce que Bigué xolam dafa tàng parce que Bigué chaque jour papaam di ko jox ay millions mu ko yóbbu banque te dara musee manqué bis ñëw jiin ko 2 millions si kër gi si sàcc 2 millions maar jiin ko ki nga xam ne moo di Bigué Bigué nag loolu tax xolam tàng moom Bigué ba ne du leen mës a baal gars yi ndax Bigué dana baal soxna bu tër du baal wala du ko baal wala épisode bii di ñëw xaña dina leer di ñaan si fekkente ne gan nga si seen bi te abonné ko si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàtte bés cloche notification bi jaa ngeen jëf